soññee ci parents la fi fo la soññee bi jëm li tax ñu ciy soññee mooy ñu xamné kenn munta jang lo domam lu melni alquran kenn mënu ko kenn munta def ci doomam dara lu gën def ci mom alquran ma nahala walidun waladahu afdala min tarbiyatin xasana yéen saa sam ne ne do way mayul domam may gu gën yar ko yar bu baax te yar bu baax ba ci jitu mo jàngal ko alquranul karim da alquran day barkel ak dundu day barkel ak kër day yok wërsëg day fajj ay febar lu rek lay def bayit ye sen cheikh bind te am ben qasida bo xamne iqra bismi rabbikal ladhi khalaq xalaqa al insana min alaq iqra rabbukal akram alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam laysa tuba teunk ربح الذي يتلو الكتاب ربح من يدوم ذا سعادة مع الأمن نانا نانا كي جان القرآن نانا بنفس بمي أم موي بنفس كو خامن فمو تولو دي عندك ترانغا أك تدنغا أك كارانغي من بركة القرآن فاقت ظنا نانا بركة القرآن رونا نجوت لو خلات نه بركة القرآن فولا ينفلت عبد جمكو تننا قارئه يفوز حيث عنا ki nga xam ne mooy jàng alxuraan fu mu mën a jëm ak ku mën a seqal dara mooy gañe mooy gañe de mu ne barakatu kitaabi taxmi taxmil qaaria mimma min al balaa'i mimma min al balaa'i takunu taaria nee na jàngkat alxuraan alxuraan da koy fegal balaa yiy bette léeg-léeg balaa jéeg-jéeg ni cëpp ci dëkk wala cëpp ci barab ñay jàng alxuraan ñëpp nee na alxuraan da leen di fegal balaa boobu ak si ñoom te loolu ñoom naa dégg وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مسورا كلو لب نقول كبير سكرة فيرني سني برادلة في كي جاب كي دارجي جاب كي دارجي نعم موي دون بيجا وكان تك سرين شيخ مو دون بيجا خلبي لقى جاي تك مو جاب كي دارجي دا لقى جاي دون دون لقى قولي جلا كون جاب كي دارجي تك كلنن لو خم نمنا جال كلنن دا لقى جاي كي دارجي wax dëgg yàlla eh, yàllaa ci def barke waaye mënut a yor gone ak gone ku ne xam ne dafa naqaree saytu naqare yor waxuma taxawaay bi ak yar ko ak jàngal ko mais dundal ko ak taxaw ko mu lekk naan sangu set yooyu yëpp ay fere yu baree bare la ci jamono bi kon sëñ eh, parent bu nekk saa boo ñëw weer di indi la ngay indi boo ca mënee boole saakub ceeb def ko te xam ne wallahi doo ko rëccu boo ca mënee boole keesug saabu def ko boo ca mënee boole ab gàtt ab gàtt bu baax def ko moo gën gis nga yóbbu ci daara benn mennum xalam li may wax ne waxuma ko pour jéem a baab kenn kum def kum neex bañ def waaye koo def da gis maam dem yóbbu ci ci daara mennum xar mu moo xam ne muy jar ñaar fukki junni moo gën ñu jël nagu trois cent mille dem di ko sarax ñoo xamul maa leen ko wax dajale ay nit tam ñu njàngalab kaamil nga génn nga def toggi laax nga toggub añ génne fukki ñu jox leen dem ca daara ja jox seen daara bi fukki junni ndànk ni ko dama ko lay jàngal kaamil dem ñibbi moo ko gën li may wax nag lu ma leer na tam lu ma xam la ku ko da nga mos xam li ma wax kon képp ku am doom ci daara ji wala amoo fi doom sax waaye am na la yàlla man loo ci xalaat wala ci man-man del gestu daara ja nga del ak du mën a doon bu dee ji baax na bu dee jeneen baax na daara alxuraan jenn ju ju mënta faj soxla nit ñi amul buñ ko joxee suñu bopp rek alxuraan na ko jox lépp mu teel la sa lépp boo doonatut da lay bàyyi sa bopp waaw afa tuminuuna bi baadi bi baadil kitaabi wa takfuruuna bi baad faaw nga jël lépp jox ko su ko defee ñu ngi jaajëfal seen cheikh xale yi njàng mi doon jàng sànq sëñ Mansour di ci taaliq riyaaya warsha lañ doon jàng te njàng mi rafet na ci seen aas xale bu toll ni ñoom bu jàngee riyaaya warsha ak warsha ni mu jafee di bàyyi xel ya war a bàyyi xel ca njàng ma loolu wax dëgg yàlla ak njàmbaar la goo xam ne sëriñ daara beeg ñum séqal liggéey bi ñoo ko def kon ñu ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp tawfiq di soññiwaat parents d'élèves fii ñuy tari si ci taabal ji comme ni ko sëñ Mansour waxee tari xale yi ñooy tari fee parents yi ñooy tari fii ñaari tari yëpp a baax benn mun cee ñàkk ndax bii day neexal bee bee day neexal bii alquran ndax suñu jang xaw a nuru njàngum yonte bi sallallahu Alaihi Wasallam. su ko defé kon amé nañ ko njukkal bu baax a baax diku yalla may xam-xam diku yalla may popularité waye muy ko oyof diku oyof jël ñëpp bol leen ci bopam di ko suñ daar yépp bëgg nak suñ daar yépp ko bëgg euh, mu bokk ci ñi jakk jang alquran ci Sénégal waaw te itam tabarak rahman dal ñong kay ñaanal bax suñu borom guddalaw fanam yokk katanam barke alquran karim ak mbaxam mom tabarakallah ñepp xam nak ko seen daara xam nañ ko su dul woon fi lay tok inshallah taala tabarakallah si amatar jërëjëf jazakallahu xeyran asalaamaaleykum wa warahmatullahi taala wabarakatuh. 啊，朱碧。 Mm, waaw su bis bi moom li ko waral mooy yàlla dafa def ñu ubbi daara ji di fi ay tout tànk di leen yar ah, chaque année dafa am benn promotion boo xam ñoo fiy génn ren nag yàlla def fi ñeenti xale yoo xam ne mokkoon nañu alquran karim ñoom ñee ñoo waral bis bi daal allah rabbi waaw waaw bis bi ni muy déroulé mooy comme ni ma ko waxee léegi rek xale yi nga xam ne ñoom la yàlla ñu mokkoon alquran ñoom ñoo moom bis bi waaye seen morom yi nga xam ne ñoom ci daal ñoo leen bu ko defee bu ñu gunge ba côté une heure rek incha allah rabbi ñu dugal xale yi nga xam ñoom bokk alxuraan ñu fas yéene wane li nga ne ñoom lañ def ci ñoom daal incha allah waaw xam naa kàddu gi may sànni rek mooy di woo julli yëpp rek ñu ñëw jàpp ci daar ji ci liggéeyu daara ji ndax daa ji liggéey bi kenn nit mënu ko yoru liggéeyu mbooloo la bu ko defee nag maanaam ñu ngi ci woo julli ñëpp rek ku nekk ñëw tabal ci sa ko defee mu nekk loo xam ni dana woyof ci ñëpp daal incha allah ndax li tax ñu mooy jàngal julli ak yar leen moo tax ñu sos daara واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا 神树。 الله ما جلنا دي نيو دي الحمد لله رب العالمين كي بنيو يالله ما ينيو فك بس بيم بس القرآن ما شاء الله دي سنوات سنو بيبم بوك طالبة بيبم بوك جلد دي وحني القرآن مويلب كم نيو كوي وحه فرال دي كوي شاك جور investissement wala ñu koy def nañ ko commencé sunu njaboot ñu xam li yàlla wax xam li yàlla digle xam li yàlla tere euh, macha allah di nuyu sunu sëriñ bi di Cheikh Cheikh Ahmed Tidiane jaaga euh, man may Pape Mame Abdou Khoule président de parent d'élèves ci njiitu parent d'élèves yëpp ci seen jiital ci seen baax xëy na du man-man du Pastef du dara lu dul tànn la rek jiital la ci ni ngay jottali suñuy kàddu ki la tànn nag ni la den ñu jottali suñuy kàddu jaadu na li nga xamante ne moom ngay gis muy lu baax muy lu nga xamante ni mooy jubbanti tamit wala muy lu nga xamante ne tamit parce que daara benn loxo yoru ko macha allah mu nekk ci di di di taaba taaba moo soxnaam us yaa Seyda ñu ngi leen di ndokkale ci bés bi. Euh, ginnaaw bu loolu jàlle ñi ngi woo bépp jullit commencé ci bisu alxuraan bi waaye lu ko weesu ak lii di ñëw mu mel ni daara yi soxla na ay ndimbal te ñi ngi tàllal loxo bépp jullit kuy def te yàlla tax yaakaar naa gënoon na metti trop tey te macha allah dañuy nekk di ca nekk rek kenn du leen ca fekk baa ñu leen cee fekk ku néew. Tay dañuy bu pour fekk len ci mu melni am daara ji bari na ay projet projet yi nga xamanteni mi ngi ci sun kanam ah, alhamdullilah tay ci seen bax ci seen gorlu ak ci mbax suñu borom euh liggéeyal nañ alquran tay ba meuna a bi nga xamanteni moy mooy bërëbu alxuraan ñu tabax ko fe ci wetu boy dem lagrose ah mu melni image yoy tamit inshallah allah rabbi bëgg nañ ci bës bu nga xamanteni kenn ku ci nekk dinañ ko tek ki luna, nak ba samp dara jaadu na mu talal loxo tay ñu ñew fekk ci ko ci mu melni daara ji disna ta ma sha allah alhamdullilah xale yaangi mokal alquran way ñing leen fi yar yar bu nga xamanteni ni tubaar fekk allah ذلك ظليم أنكر ذا مال وبنين إذا تتلى ñu ngi nuyu mbokki jullit yëpp di nuyu mbokki soppe alxuraan yëpp di nuyu sëriñ daara yëpp waaye di nuyu tamit ñi nga xamante ni am nañ chance gis daara juy dem ñu teg ci seen loxo ndax ñoo ñooñu am nañ chance suñ borom liggéeyloo leen ndax suñ borom kum nar a liggéeyloo da fay kum bëgg fay dalay lay liggéeyloo te bu ñu demee ci sotti baqara rek dañ fa fekk fu mu wax ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla ba pare di def ci yoonu yàlla lan mooy seen ak fay ëllëg. ak fan la leen di fayee te bés bañu bés fañu fayé nak kèn du fa liggéey saxlaatuñ fa ku liggéey bu wër dé bés bi ngay ko do ko liggéey dang koy dem ko kon nak nañ ko ñëkënte ji ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum an yaatee yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafaatun wal kafiruna hum adh-dhalimun ay bobu nak commencement bi dafa neex lool muy ñëgëm yàlla la suñu borom di waxal buñu amé sen alal te bëgg ci bésab ramu ba yàlla ramu len nañ ko def ci yoonu yàlla fan mooy yoonu yàlla mooy daara yi ñu tabax ndax boo gisee Sénégal li ñu ëpp li ñuy financé mooy ci jàkk ak juma waaye jàkk ak juma ka fay jiite buñ bëggee mu am yar am teggin dañ koy yóbbu ca daara ja kon lu jiitu ñuy tabax jàkk yeeg juma yi nañ tabax daara yi defar ko ba mu rafet xale yi jàng-jàng bu rafet bu ñëwee ci jumaa yi mën koo jiite jiite bu set jaar yoon te foofa boo fa demee boo fa defee ëllëg suñ borom ca bés ba nga xamante ne bii ker dafay jafe ca la lay keral jox la lim la waroon a fay muy foofu la weer wi di dee muy shafaatun wala wala safa wal kaafiruuna humu daalun ñu ko weddi wax ji ak jëf ji ëllëg dañ koy réccu rek comme bés booba nag ku fa àgg da nga réccu ku defoon lu baax da nga réccu ku defoon lu bon da nga réccu te kay def lu baax di ko réccu bu ma yëgoon gën a def lay def kon nañ leen def ci daara ji boo jëlee yoonu Lac Rose bi bu la wanee daara ji danga nga xam ne suñu kii féetuñu suñu ndeyjoor ku jàmbaare la ci daara ndax ndaw la te ku mën a def taxawal tol nii ku ko teg loxo mu dem ku ko tegul loxo mu dem ko am chance te yàlla nar laa fay nag yaa ko teg loxo kon yàlla na yàlla xiir ñu ci mën koo teg loxo wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa